dafa takk jigéen yoo xam ne dafa nekkoon ci caaxaan ba ëmb mu takk ko te xamutoon ne ndaw si dafa ëmb benn nitu yàlla imaam la woon nekk ci koñ bi ku bëri woon jaamu yàlla ku bëri lu muy julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bés bu nekk di ñaan gis yonantu bi sallallahu alayhi wasallam yàlla xañ ko loolu ah bés mu xëy benn waay yoo xam ne bu jullee tey suba du julli si bu dana toog weer du ñëw ci jàkka ji mi ngi ci marché bi mi ngi ci dëgg-dëgg mi ngi ci luuma yi ci loolu rek la nekk kenn xamee ko jaamu yàlla bu bëri waa ji daal moo xëy benn suba teel rek ñëw fëgg imaam bi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi lay nuyu mu ne ko déet ah yow yonent bi buy nuyoo yow lay yónni yow mi nga xam ne bu ñuy julli doo ñëw yaa ngi ci marché yi yaa ngi ci nangam loo am mu ne ko man fu ma toll maa ngi gis yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko taxawal yow kon noo amee nooy def di gis yonent bi ak man li may def yëpp di imaam di jiite di fanaanoo salaatu ala nabi di naafila di saraxe sa di jàng alxuraan sama waxtu yëpp ci laa nekk mënumaa gis yonent bi yow nekkoo ci di gis yonent bi lan moo la ko may mu ne ko bés dañoo nekk ci jàkka ji nekkate bés dafa am benn xew-xew bu am ci jàkka ji mu am nu ci defee dafa am benn waay ju takkoon jabaram voilà mbala moom si boppam moo takkoon jabar bi mu takkee jabar jabar ji sëy si ndekete ba muy ñëw dafa indaale ëmb dafa takk jigéen yoo xam ne dafa nekkoon ci caaxaan ba am ëmb mu takk ko te xamutoon ne ndaw si dafa ëmb bi ko indee ci kër gi benn weer ñaari weer rek biir bi toll nii xëy mu ne ki ma takkoon dafa ëmb di ah mu ne waaye comme takk naa ko te jaamab yàlla la te kenn xamu ko woon bañ maye ko yàlla mi ko suturaal ba mu dugg ci sëy man danaa continuer di ko suturaal ba kenn ko xam moom waa ji loolu takk jabar muy indaale ëmb nga ne yàllaa ko suturaal ba ma takk ko man danaa continuer di ko suturaal ba kenn du ko xam mu jël ndaw si rek tëj ci kër gi su mbokki ndaw si ñëwee mun leen daa dem marché bu ay mbokkam ñëwee mun leen day nelaw temps yi dafa dafa wérut mu ngi tëdd di nelaw xanaa ngeen bàyyi rek soo fi ñëwee danaa ko wax ne ko ñëwoon nga fi di layal di layal ndaw si kenn mënut a teg bët ndaw si bañ xëy suba ndaw si am doom moom moom kese ci kër gi mu daldi bàyyi ba fajar jot mu dem ba ci bun ci jàkka ji mu jël doom ji doom ji ndaw jabar ji am te juut ko mu teg ko ci buntu jàkka ji daal taxaw ci côté wele di seetaan làqatu bi imaam bi ñëwee bilaal bi ñëwee di nodd ubbi jàkka ji rek ñu dégg liiw buy jooy ah buy jooy lan la ñu ne xale ñëpp daw wër ko mu daw njëkkalante ñëw ne jox leen ma mayew ko jox leen ma mayew ko man bëgg naa ko buñ gisul papaam ak yaayam rek man mën naa kaa yaam ah ñu ne kon gisul xamuñ ku ko fi indi te dafay lottu ah neen gaaw xeetali liir bi neen seet kan moo ko mën a amee mu yëkkati loxoom ñu jox ko mu jël xale bi yóbbu këram joxaat yaayam mu ne dama suturaal sama jabaam gis nga nu mu suturaalee jabaam indil na ko doomam muy amee doomam te kenn xamut ne doom ji daf koo njaaloo mu ne sutoo boobu ma sutural sama jabar ci laa gisee yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne man ak yow ñooy bokk aljana ñooy bokk dëkk aljana waaye yow koo xam ne du sa jabar ab jigéen boo gis mu dëgg kër jàmbur nga ne njaalokat kii nit ku bon la koo gis dugg ci ata jàmbur nga ne gelam la daf doxaat kilifa goo gis muy wax jigéen nee na dafay dafay dafay nangam teg moom yow kañ ngay am gis yonant bi kañ ngay dëkk ak yonant bi kon neen delluwaat ñu suturalante bu baax a baax a baax